salaamaaleykum mbokki ak xarit yi ravi de vous retrouver comme tous les lundis à partir de 16h sur la télévision Futur Média merci encore de votre fidélité parce que fidélité boobu noonu moo waral euh, li nga xamee ni moom leen leen di waaj defal muy teraanga yi bari na à chaque fois bu ñu démarré numéro de téléphone yi yor ngeen ko ñu ci bëri ñu ngi seen ñu ngi seen biir téléphone mais ce que j'aime li ma gën a neex euh, ci euh, teraanga yi mooy tey ku nekk ci yéen fexe nga ba jël li nga moom am na nag li fi des. ndax région bu ci nekk am na lu ñu ci def mais ah defe naa dañu koy pelloon nag mairie. ah sama ah. sa. man mairie mënut ma def mënut ma def émission mairie. <laughs> mais lu tax parce que mënu ma la bonjour mairie. bonjour ex. comment tu va pas daal. et pourquoi. lundi laay bañ léegi seize lu tax léegi ndax da ngay bañ na sama kii école. bañ a la. Eh, dañoo maa tooñ na ma mosuñu bokk classement ak yow. mais c'est vrai dëgg la yàlla dafa bëgg dëgg. dëgg la chemise baax na. sa chemise baax na gis naa jaune bi toroxal bleu bi ndax. waaw gis nga robe chemisier rek bu ndaw nii rek. cas ca ca waaw ñu jël benn jaune rek pour mu ñëw tas euh, yaakaaru bleu bi noonu rek tout simplement. <laughs> Euh, ex di la nuyu nam moo naal trop man nag dama leen nama man lëndi la ki daa yaakaar. di fu mu mais maa la raw ah. wallaay wallaay maa la raw ah non. en plus maa la maa la raw yéen a ko maa la raw roppi la yéen a ko dugg marché Grand Dakar teg ku mu lamb samay loxo. booba neex na lii nii bu ma 10 000 jege woon sax ma décoré la. wallaay wallaay mais 10 000 jege ma malheureusement donc di nuyuwaale aussi suñu téléspectateurs yi Euh, tàmm naa di leen ko wax léegi les lundi dañuy daal di voyager man ak ex ngeen di àndal mhm. ñu daal di jël avion bi rek roppalaan bi rek daal di dem États-Unis daal di dem Afrique Europe fu ñu neex la ñuy dem ñibbisiwaat Sénégal toog donc di leen nuyu di leen dalal euh, muy yéen téléspectateurs di yéen aussi internet parce que yéen tamit ci ngeen bokk waa Facebook waa Instagram waa YouTube ak waa Twitter yéen ci ci xew mi ngeen bokk voilà donc muy plateforme yi nga xamante ni foo nañu làmb daj ñu fa ah donc mën ngeen nu démarrer tout de suite déjà sur Facebook euh, ko xam nañu saa yoo leen defee capture nga yónnee ñu ko Amina Poté bu ñëwee nag teral leen ndax moom mooy borom euh, Facebook bi mooy kii teral foofu waaye euh, dinañu def tamit le grand yebbi bi nga xamante ni da ngeen ci ànd ak moom tous les dimanches donc mu teral leen waaye tamit numéro de téléphone yi defe naa ne baax na ñu préciser waat ko ndax la répétition elle 88 628 04 min nañu ko. 88 628 20 20. 88 628 22 22. 88 628 20 30. 88 628 65 65. 88 628 72 86. 88 et maintenant pour la France. ñi nga xamante ne mooy waa extérieur. yéen très bien alors voilà donc numéro yaa ngi noonu à vos marques prêts à vos claviers gaaw leen gaaw ngeen composé on vous attend déjà en musique tey defal na leen tey benn cocktail bu baax euh, comme ni ñu koy euh, defee chaque fois on démarre en mélodie mais des mélodies fortes pour ne pas dire céleste mais très très fortes donc Youssou Ndour euh, way bi hello mante ne xale dañ ko bëgg. Ah, TikTok nañu ko. hello donc voilà mu nekk chef d'œuvre boo xamee ni bëgg na leen ko may balaa ñuy tàmbali mais ko ci sama jëkkër. parce que tey c'est un c'est un jour spécial ah tey ah. waaw tey jour bi spécial la bés ci biir bés yi la. <laughs> tu as envie de lui dire hello. ah oui hello baby. waay <laughs> waay bëgg la neex waay laay yàlla xel dee rek <laughs> ah merci d'abord à toute l'équipe ñu ngi nuyu tamit ñi nekk ci région yi yëpp euh, euh, waa Thiès ñu ngi leen di nuyu waa Mbour ñu ngi leen di nuyu. Saint-Louis Mauritanie. Kolda Mali. Euh, Kolda ka Tambacounda. voilà Casamance. Euh, ma xool ndax xam nga yëpp ñu xool ñu ñu defante léegi ci région yi on <laughs> dañuy def ba mu mat. ayca Dakar. Euh, Saint-Louis. Thiès. Matam. Casamance. Tambacounda. Kolda. Kédougou. <laughs> Eh, Matam. Kaffrine eh Matam wax naa ko. Eh. daanu la région a été déjà prononcée. oui je je. <laughs> Ah, léegi kan voix boobu voie automatique Tambacounda. <laughs> wax naa ko. Kédougou wax naa ko. <laughs> eh munoo wax lépp waay. wax naa ko. ah yow ndeke kii dafa jàkkaarloog table bi. <laughs> salaamaaleykum. on regarde la vidéo hello histoire de vous souhaiter bienvenue Youssou Ndour Morimbi en featuring avec Youssou Ndour mu nekk une très belle chanson déjà ñu di ko may euh, soppe yëpp ah parce que déjà li duo bu ñuy seetlu euh, soit c'est l'un qui rejoint l'autre mais ñoom dañu trouver benn terrain d'entente à travers la musique qui est un peu pop ah donc euh, électrique donc qui est une très très très euh, belle musique surtout euh, arrangement yi donc di ko may nag melomaan yi soppe yi ñi nga xam ne actuellement ñu ni seetaan aussi euh, foofu ca France ñu ngi leen di nuyu donc numéro de téléphone bi pour yéen ñu nekk France pour ngeen mën a jot ci teraanga yi euh, man ngeen euh, woote ci 08 90 03 77 88 di ci nuyu nag sama rakk ji ko koy soxna may maa ngi ñëw nag yónnee ma li tur ña fa nekk waa Calcio Shop su ma ñëwee léegi léegi lim leen alors Merry Beye. oui démb tegal Diouf waay daf may neex. ndeysaan mais Merry Beye Diouf laa. mais lu tax nga damay puni. <laughs> ngeen. non mais wa man si booroo may puni daal. mais puni wu ma la. non da nga puni. man am naa droit man la Merry Beye. waaw de léegi mën na la man bi ma ci gën a neex. bi ma gënal mooy yokk ko ci yow. bi ma gënal mooy nga ma yokk ko ci waaw yokk ko ci. ah waa ex nag yow la la. aw ma droit ma ne affaire yaa affaire yaa ngi bëgg euh, mais yow joxe woo gis ngeen barke sa. topp eh. na yow. non dama topp ma xool dama lay woon. yéen xale yi danaa leen yar ngeen xam. waa bu njëkk xale yi ngam dañoo joŋe. <laughs> bëgg seen jëkkër lool. Ah. soppi leen tey sey di rëgal. Hmm. ñooñu bu ñu gisee seen jëkkër. Mm-hmm. boo ñëwee ne ko mairie bay danaan la juuf. Mm-hmm. yow kañ ngay dégg mary yow lan la doo kañ dox dox doo dégg. yow yar naa la ci ngéwél ñëw. ma yar la ci wolof ñëw. xanaa vietnamien nga bëgg ma yar la. waaw soo ma yaree ci vietnamien moo toll ci vietnam. yow sa kër bu ñu ñettee ñu la yow sa kër ñu ñoo la mairie bay nooy nooy wooyee. man nooy fay nooy woo nooy laay wax mais nag man dama bëgg ñu may woowee. mairie bay Diouf mais du safee du oh ndeysaan. mais léegi mais man loolu laa bëgg wala li ma bëgg léegi dootul compter. mais waxuñu nag du compter mais yow sa bopp bu ma nee la mairie bay nga ne ma Diouf. déedéet bëgguma boobu sama choix la sama droit la waaw on est encore en démocratie que je sache. yow di nga sukkal donc def man damay sama sëkkër rek laay sukkal nag. ah yow ñoom ah doomu sa. sama jëkkër rek moo mën a am gën a garaaw ci Sénégal tey li mu wax déjà crime la. nee na moom du suk du sukkal keneen ku lu jëkkër. kese yow xanaa sa goro du nit moom xam naa ay moom xam naa ne moom moom bokkul ci nit ñi. daal yow sa goro mais sama sama goro sama jëkkër la. da ngay dégg olof. da ngay dégg télé leen nekk de yaa ngi toj télé bi de. da ngay dégg olof. te su guddi bu <laughs> eh, eh, waay waay waay bàq nga njaag waaye njaaga nga courage bàq kan yaa ngi na ñëw na ba dellu. amoo goro yow. man am naa goro ke. ah sa goro doo ko sukk. mais loolu laa lay wax goro mooy jëkkër wala déggoo li may wax. waa d'accord léegi goro mooy jëkkër. waaw léegi xaritu goro. xaritu goro. waaw say xaritu wala xaritu ah. ah. ñooñu moom am problème samay booy lañu ay ñoom Ibou Guèye ay ñoom Ismaïla. toog samay booy lañu. man bu dee loolu. ñooñu samay booy lañu bi duggee ci biir kër yi. di naa la ko ko tegal ndànk nga ñibbi sa kër ndànk. yàlla baax na ba du yow. waaw donc waaw. waaye nag xam nga tey lii mënul nekk léegi yow émission bi ci man lañ koy tourné wala ci téléspectateur yi. da nga dul jël nga maye xaar da nga nar a yàq lu mu toll nii. ndax da non normalement jigéen dafa war a ku mu romb. Hmm. bu nekkoon Mary Bey ngeen ne Diouf. non non man dama bëgg ñu may woowee Mary Bey Diouf. waaye léegi ku xamul sa sant ngeen tase ci mbedd bi naka la xamee ni Diouf nga. sant mais man ñu ñu bëri dañuy foog ne ne Diouf laa naturellement. kooku après yow la rek. mais loolu ma ci neex na def léegi moom mooy. loolu du crime ci mbedd bi ki la xamee Mary Bey na. ma ne tey takk nañ la am ngay doom. mun la Mary Bey loo koy wax exidex ba keroog ngay génnee jaasi teg ko sama put laa la wax ba ngay reen di. Mary Bey bëgg ñu may woowe du Mary Bey ma naan la Diouf xanaa boobu gën a dee. nañ avancé mi mi atte leen xeex quoi. avançons mais mi ngir yàlla mi mais yow doo avancé non déglu rek. miyaa ngi nii miyaa Ndour la ñuy wax man miyaa xaw ma sax santam miyaa Ndour la ñuy wax bàyyi ma. kan miyaa man xaw ma santam miyaa Ndour la ñuy wax. foo nekk miyaa ma la lu Ndour. waaw mais mais man miyaa Ndour laa xam rek la moom. mais miyaa Ndour laa xam xaw ma leneen. non gos rayu ah. leen ko da ngeen rayul ci miyaa dara oui. jëloo leen ku ci ah jëloo leen ñun tam xarit bu jotee. allah waaw tam xarit bu ñun miyaa li ñuy gis. maa joome man daal di jël kiw eh, ku ne jox waaw mi noon la jox moom cosaan ci wàcc ko ba tey malgré modernité waaye yow yaa ngi nii tey ñu takk la rek ah. ñu xëy suba teel xalaat ne say jëkkër doolin su say xar jëkkër doolin su kël ah. ku la romb ci mbedd bi xam la ci mbedd ah ku la romb ci mbedd bi ne la mairie eh, mairie bay nga ne doo doot léegi ma may la benn sama jëkkër ji boppam moo bëgg ñu may woowee mairie bay Diouf ma fekk ci ko ci mu gën a neex. waa loolu waaw léegi jàllal sa émission. kenn du def émission si man. salaamaaleykum ñu ah, ngi leen yéen ñëpp ku ne bébé ni ma waxee ba baax na rek. ba baax na ni ma ko waxee. ay ca avancé nu dem. <laughs> d' accord maintenant tu sais que. Euh, am na benn morceau bu ñu bu ci. Mhm. bu ñu bu ñu euh, jagleel téléspectateurs yi. mais mhm. surtout les amoureux. waaw parce que quand on parle d' amour c' est vrai que y' a le présent il y' a le futur mais surtout il y' a le passé. effectivement Daju. Mhm. am na waayamba. va dire à ton ex. va dire ex. waaye bu doy waar a ngi noonu. loo jàngat. yii loolu mooy. mooy li ndax ma mooy li xale bi woyoon fii rek alalu ko sàggan. moom la rek en version française. kay kon yow mën naa la nangul léegi di la wax Mary bay Diouf. waaye nag kaay balaa muy baraam balaa muy baraam danga may teral en direct. teralu la. waaw fu mu ne nii tey benn nit laay teral. léegi kon soxna kan tey jii nii nii nii. ce 22 février 2021 bi benn nit rek lay teral muy monsieur Diouf. ñoo ngi lay ziar sama xarit la munoo yàq sama diggante ak monsieur Diouf dara sama nami sama xarit la garaawul <laughs> léegi nag yéen ñi nga xamante ne yéen a toog seen kër <laughs> ñu ngi leen di xaar ci teraanga yi. acca woote leen gaaw ci 88 628 20 20 88 628 22 22 04 yéen ñi nekk France. exclusivement dañ leen jagleel benn numéro muy 08 90 03 77 88. numéro yaa ngi noonu foo leen ñu làmb daj foofu dina ñëw bu ci kanamee ci wéef waaye balaa loolu defe naa mën nañoo jël benn téléspectateur donc vous pouvez déjà appeler pendant mm. di jàll dañuy arrêté automatiquement. Euh, way bi daal di nuyuwaaleel ma foofu kii waaye Penda Diall benn euh, kii la Facebooker la ni dafa wax lu am solo te neex ma ni waa Penda Diall maa ngi lay nuyu merci nee na nga bàyyi siisu bi te nga def man li ma bëgg waaw ndax fii maay gérer merci. merci Penda ma merci ma chérie nuyul ma ko bu baax. salaamaaleykum ñu jël keneen ci ligne bi man nuyul ko sa bopp man fa sama faalo moom ko nuyu man. ay waay waay ex ex kañ nga mel nii na nga ma. yoo xam ne añoo tey man yow lu sa gis nga miyaa eh, damay tas émission bi de. nañ jël keneen ci ligne bi 88 628 20 20 wala 22 22 allo. allo salaamaaleykum kaay kaay jël kaay taral allo allo yaa may dégg. waaw nga def. ça va naka la tur bi. naka Papis. Jóoba Juba. waaw. njiit wala. ah. Jóoba Juba ah, rek. nga ci xam yow it. <laughs> Ah, ah foo ñuy woowee. Pikine. waaw di nuyu waa Pikine yëpp tali bu bees ah? waaw foofu nga nekkee. waaw kon nuyul ma waa Pikine yëpp waay. waaw léegi nag xoolal carte du Sénégal baa ngi nii. ma bëgg nag nga tànn benn région rek su ko defee ma teral la. ah. ban ngay tànn. ma jox la Kédougou. moo nekk nii ci taat bi nii. yow loo xam ci Kédougou lu tax nga tànn Kédougou. ah kii ah fa nga nekkoon mais dégg naa dëkk bu neex la. ah kon xaaral ñu bës ko xool foog ma dem Kédougou de. ok waaw. Kédougou moom foog ma dem fa moom. ah waaw foog ñu ànd moom. boobaa damay ànd ak monsieur Diouf rek ñu ànd. waaw. Oh, <laughs> oh, <laughs> 5 4 la ma lay teral. ah tarala naa la 75000 ah, de naa si. ah sama sama loxo bi kii na de diis na de ah. salaamaaleykum rek rek. célibataire nga wala marié. Ah, mu ngi dugg jot naa enveloppe bi. mi ngi dugg si vie privée nit ki léegi Papis yow yor nga kii euh, nu mu tuddati application euh, kii bi euh, Wave. Wave application bi la. yoroo application bi mais yor nga Wave. yor naa Wave waaw. léegi xoolal message yi ndax li ma la yónnee ñëw na. ah, ah waaw jot ko léegi nag. jot nga ko. waaw jot naa léegi nag xoolal xam nga lu ma bëggoon. après nga télécharger application ba rek foofa toj dégg waaw kay merci Papis. voilà fi lay toujours euh, da nga koy yaatal parce que application bi gis nañu d'ailleurs 1 pour cent mën nga ci fay sa facture euh, oyofal mën nga ci fay sa facture ndox mën nga fay sa facture courant mën nga ci fay vous avez plein de rubriques euh, da ngeen koy télécharger euh, ci seen téléphone at foo mën mënti nekk muy Play Store muy Apple Store foo leen fa dem mën ngeen ko télécharger 1 pour cent quand yomb na waaw parce que keroog xaalis bi ma la waroon yónnee fa laa ko jaarale da nga fàtte te jotuma ko ah. ngir bu juddul man du ngir bu juddul oui sama ndey yow ma cent cinquante mille <laughs> aara bu ñu wàcc dañ rek la loolu. dama la leen bañ. lu mais man nga bëgg a lii ngénte loolu liir bu juddu yow fan nga bëgg a 250 yow man mi nga bëgg a rusloo fii du ma ko def 250 ma la woon keroog da nga fàtte mooy ba mu waxee sama bon bi mu yekkal la añ léegi Merry Beye yow nañ dem avançon Merry Beye Diouf waa ah, waa waaw waaw naam kon waxal dëgg mais dëgg laa la wax yu fii lañ toogoon keroog Euh, am naa lu ma metti bi ci kanamu yàlla rek ndax vraiment léegi di ci yokk ci bokkul léegi naan ma yónnee na ma xaalis te yónneewu ma man gisuma gisuma sax du 10 000. du xam dara ma gis bien reçu. bien reçu lan bien reçu nga ma laa <laughs> dama may montre fii en direct léegi tey mu bëgg cee yokk mën ngaa fee rek mu jël ay mool ay balay nag ay spaghetti lu ne. gis nga may montre boobu lim ma coûté. yaa kooku. samay xarit di ma woo. amoo koy may lu dul ex te ñun ñu nekk fi. waruma may. ah gis nga xarit gis nga ñooñu nag da nga war bàyyi tey nag la ngeen may ma tuuti rek <laughs> yow boo dee go baleen da nga koy da nga la. ñu taas ma bu rëy. mais ñooñu war na war na laa war na montre xalam boobu nekk fi gën la rëy jege. waaye yéen waane sa xarit yooyu yow nga foog ne sa xarit lañu. ah gis nga nag nii la ñuy def rek di tas àndandoo tas mbokk bu ñu gisee lu baax ñu ne ca waa jaj jaj yow ii yow ii waruma may mont. Ah. waruma may mont. a may mont nag. waaye léegi ñoom lu seen yoon yow maa yow yàgg na. xamoon naa see yàgg see xarit yi ñu man dara mënu maa bett finalement en fin de compte daal 88 628 20 20. am na dama am lu may mit toujours quoi bari. waa ak say àndandoo ak xarit. waa bëgguñ la de. waroma waromaay may montu ñoom ñaar naa la ko bañ a wax de mënoon naa la ko bañ a wax. ndokk bi ma ko waxee. waaw mais dama la ko wax rek dootuma présenté benn xarit ma nuyu ko. déet waay mu ngi nii rek. du ma la wax tuur kon. dee leen nuyu doo xam la man daal comme xam naa monsieur Diouf monsieur Diouf daal ñi si des sama yoon newu ci léegi nag 88 628 20 20 mën ngeen profiter di woote donc voilà li ñu ibbi nañ ko mooy ni ngeen nekk euh, di gis nii tout de suite ku woote rek euh, daal di dugg ñu teral la donc numéro de téléphone yi encore une fois dañ numéro téléphone bi yéen leen ko jagleel parce que euh, d'habitude yéen ñuy gis souvent les gens ils appellent ñu nekk étranger voilà pour ñu dimbali leen et cetera yéen ñi nga nekk seen biir kër et eh ben dites-vous que mën ngeen woote ci numéro bi di 08 90 03 77 88 muy numéro bi nga xamante ni pour yéen lañ la ko yéen lañ ko jagleel exclusivement voilà donc euh, defe naa ne Mia war nañoo mën a am na kalewaat nañu beneen wala xaalis. te xam ne direction next bi la bu daju bi. waaw moom la ñuy teg. léegi ma may ko kan. loolu kay kooku ma yaa xam. jëlal ma may ko sa jëkkër. <laughs> mais dinaa la ko wutal. ku ma xam ci àdduna bi woo naa la ñaan la iPhone bii xam la la may wax waa ex naa la yónnee livreur araam mi kuy naan sàngara. mi ngi naa la ko wutal naa la ko wutal. kon yéen laa jël yéen laa jël incha allah kañ laa koy am. déedéet waxuma la dat. non man samay yëf dafay teew day am leer wolof day wér non da nga jox non dañ koy bàyyi mais jox ma app kon da ngay perte waaw bu ma jox date jox ma app gis nga nit ki bu la bëggee defaral lu baax dangay ngay toog sa anniversaire nga fi lu nekk nga fi xew ak sori da ngay toog yow ci diggante boobu ma dagalee xanaa na pour ma jënd ko. waaw day del dallu rek dama joxe eh, exemple rek. loolaa la. dama joxe exemple rek jox ma bi nga yor ba pare. bi ma ah. ma sama jëkkër wutal ma jox la ko yow. ah yow nag yow xanaa yaa ma demaloon kon bu ma dig daal bi soo new ci yow bi loolu bu ma bàyyi ko lu da may dig non mais bu ma dig. defal naa la surprise jox la montre kay ku su ma la waxee dinaa la jox kay dinaa la jox. <coughs> ñaan naa ku ne mënuma koo am yéen nag mën na leen ko may. dimanche bu ci nekk voilà donc boo leen euh, woote ngeen ànd ci nag at euh, <laughs> Amina Poté sama rakk ju baax joojule maa ngi koy ziar di nuyu tamit nag les animateurs parce que je les admire hein, mhm. de la télévision Futur Média animateurs yëpp je vous admire parce que au-delà même euh, ñun bu ñu wàccee on devient des téléspectateurs mhm. on rigole hein, on apprend hein, on, on, on, on voilà on partage des moments très très forts donc di ci nuyu les PNJ seexu yàlla yi kenn du groupe Futur Média ils sont ñu ngi leen di nuyu Sidaat Thioune maa ngi koy nuyu. Mhm. ah di nuyu Abano Stress sama rakk ji le moom it maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax Weekend Star toute l'équipe voilà donc Kulim Dioum donc Aba et toute ton équipe ñu ngi leen di ziar ah donc Aba no ah, man Aba del stress laa ko tuddee. Aba <laughs> del stress. <laughs> waaw non Aba affaire la Aba <laughs> rek. xam nga fan laa dem gis ñu bind fa no stress damay ree bu dugguma ci gaal gi. mooy Lac Rose. non stress. waaw Aba nee naa ko da dem Lac Rose Aba na dem air Lac Rose. gaal gaal ya fa ne. no stress lañ ci biir no stress waaw c'est vrai que ñoom waa Lac Rose ils sont très cool. da war fay euh, Aba ay droit d'auteur ah. leen di nuyuwaale sax au passage. voilà nga dem Lac Rose. du ma fa géej. Ah. man balaa kenn di ma teral ma teral sa bopp ci li ma yor. ca kër ga nga fa demoon wala. fan ci dex ga am naa droit ma dem ci dex ga. waaw mais non ci kër ga nga demoon. kër ga kër ga foofu. ban kër. non après la kon continuer ñu dem xalaatul xawlan min rabbil rahim c'est pas possible quoi Mia euh, dimbali ñu rek ngeen xool keneen rek koo lañ ma bo kii moom mën naa dem moom non moom mën naa wàcc daal voilà noo wàcc yow daal mën ngaa dem incha allah boobu leen di jotatee soxla bul sañ si bul ñëw waaw bul saxle bul sañ si bul ñëw man nee naa damay yàqamti leen di jot soobee yàlla de leen di bii di ñëw de <laughs> boo fi ñëwee fekk keneen toog goree rek toog ci chaise bi te seetaan émission bi di ko laaj. baax na 88 628. ba Anta Seck euh, foofu ca Tiwaawoon di ci nuyu tamit euh, Jibi Sène alors grand Jibi maa ngi lay bëgg bu baax a baax a baax ah Jattu Touré on va passer à une autre vidéo koo xamante ne bi nga xam ni euh, voilà on moom xam ngeen ko. Mhm. donc muy H. the best. voilà donc mu nekk une une vidéo que j'aime beaucoup aussi. Mhm. parce que xale yi léegi. Euh, dañu xam comment fi bët Sénégalais yi nekk ak fi mm-hmm. nopp Sénégalais yi nekk mm-hmm. et ça c'était important c'était un travail yoo xamante ni yàgg nañ di ko def mais tey ils ont compris fi bëtu Sénégalais yi nekk ak fi nopp Sénégalais yi nekk la preuve li ko illustré c'est à travers cette vidéo regarde H de Besse wi sañ naa ko yóbbu euh, compétition RFI. Hmm. oui sañ naa ko parce que dafa am couleur. Hmm. la réalisation de la vidéo dama bëgg euh, toujours ñu taxaw ci tuuti. Hmm. Euh, y a des vidéos yoo xamante ne c'est compliqué c'est-à-dire que montage te am na ñoo ko doon jox dañuy cuune parce que bu ñu koy monter dañ koy def montage dynamique. am na ci benn logique wala yenn genre texte yi mën nga ko def même bu fekkee morceau dafa yéex. man nga def montage dynamique garaawul. mais bii ba ci harmonie yi sax accords yi sax. dafa wàcc c'est en mineur c'est voilà c'est fa mu may ma ci crépuscule ma xamante ne ah. am na solo ndax ànd ak parole yeeg son waaw waxtu boobu laa ko sol bu ma mayoon naaj bi mu ne fang. Mhm. dama koy mere ma xam ne daanu na. mais daf ma may crépuscule. may ma large nag profondeur mu am profondeur bu sori tu vois une silhouette en profondeur j'aime parce que ça me fait réfléchir musique njëriñam mooy boo gëmmee boo dégloo way bi war na laa mën a transporter yow miy déglu nga réaliser vidéo bi sa xel. Mm-hmm. yaa ngi may déggal déggu. maa ngi lay dégg bu baax. bu la way mënut a transporter ba yow ngay réaliser. nga nekk scénariste réaliser vidéo bi sa xel des na. dund ko sa xel daal. gëmmal way bi da koy da nga koy dafa am fu mu lay yóbbu. lii du du muy musique deux heures du matin yi ngay déglu. waaw sedd na mën naa neex. mën naa nekk mën naa musique fajar. musique fajar. waaw moi j'aurais plutôt du deux heures du matin xam waaw ba tey si guddi gi noonu mu. accompagné waaw musique diggu lal noonu si crépus ah. waaw diggu lal diggu lal. ñu ngi ci crépuscule bi noonu. waaw dama koy bañ ah timis bi neex na. ndax dama bëgg toujours xale yi ah. coucher de soleil bi. voilà crépuscule coucher de soleil ba pare dafa neex. li ma gën a neexaat encore ci wayu yi man wayu fi may daaneel gis nga mi yaa na sa jàmm yàgg. ndax bii waaw mi ko yaa moo ko def waaw man dama bëgg way wu neex mais way bu am couleur tu vois il est pas gourmand mhm. il a chanté avec sa voix il a pas chanté avec les instruments il a chanté juste gis nga chanter précis dafa neex. avec les couleurs qu'il a apportées ça s'accorde avec le clip. da ngay dégg ngéwél ci suuf. Mhm. na bu ko yëgg woon rek nga dégg ngelaw bu xaacoo woon nga dégg ngéwél gu leer. Mhm. da ko da ko baaral. dëgg dëgg la ma yow. dëgg la ma suuf daal di baaral maanaam. waaw mi daal. way wee neex. yow way bi mujj nga kaa dugal labo nii en direct. wax dugaluma ko lay labo kii mu ko dugaloon labo. xam naa ne yaa ci labo bi ni <laughs> non mu ko dugaloon labo boobu ay côte laay teg. boobu comme ça ñuy génne lépp. mais c'est une très belle chanson qu'on recommande déjà et ñeme naa ko yóbbu RFI. ndax way bi mokk bi RFI man damay am daal man leer na ma damay gagné. c'est sûr et certain bii couleur tropicale. Mhm. Claudicia. Claudicia waay su kenn du ko jël. woy bi day dem donc fet des musiques comme sa Mm -hmm. on a besoin des musiques couleur pour ma mën a bii mën a dàqanteeg Mali. ñeme naa ci Burkina. Mhm. du ma dugg Nigéria. Mhm. ndax ñoom ils sont dans le rythme blablabla mais bu dee musique couleur dëgg mooy ay mhm. Niger yi mooy koroboro bi. tu vois Niger xam nga euh, Mali bi ak yooyu noonu. donc c'est une musique qui peut compétir et qui peut facilement rivaliser les autres. Mhm. macha allah donc c'est une très belle chanson di ko may nag. Mhm. Euh, Lamine euh, Negro Cissé maa ngi koy bég bége bu baax ah Naar ma wax nañ ko Anna Safia Touba maa ngi koy bége mais sama yaay ji Rama Mama Rama la grande actrice foofu ci Rufisque ah yaayu euh, Magita Magita moom xale bi ma gën a lakkal ci àdduna waaye yàlla baax na nekk ci kanam rawu li bët ah di nuyu nag. je t'embrasse très fort ménage moom it lañ koy souhaiter alors woy wi am na solo de. way balaa neex daanal ki koy déglu. yow kay fu mu ne nii daanu nga. waaw man kay fi mu toll nii mën naa wàcc fi mu toll nii bu neexee ñu bàyyi émission bi sa yaram bi yëpp bàyyi na ndax way ndeysaan mi mi yaam su ma xamul su ma su ma ñemewuloon dama ko dama ko doon ñaanal. way bu mat a dugal la kii bu doon rajo la. Mm-hmm. donc koy defaat bis. non rotation fort lay nekk. Mm. parce que bu boobaa il faut ñu liggéey gis nga way balaa nga koo mën a way balaa moo mën nekk tube. Mm-hmm. kenn mënul teg ndef morceau way benn tube su nekk rotation forte. dëgg la. rota force rotation forte dafa am am tranche yoo koy def ak fréquence bi une bu ne ma jam la ko quatre fois pile ma jam la ko écart ma jox la ko trente ma jox la ko moins la quart ma jox la ko pile ma sàbbal sàbbalaat mooy avant top horaire laa la ko dugal par force day nekk tube ndax boobaa xam ne dafa am lu ci jàng bi dafa am lu ñuy wax de crâne hmm. mooy dama koy dugal ci subconscience balaa koy tàbbal donc animateur Ah, ah ça ça à dire. man ngaa fent way wu neex. Uh-huh. bu ko animateur yi joxulee ak xam du doon tub. kon gars yi instant yi ñu ngi dugg si la minute court musique duggaat nañ suñu minute court. <laughs> continuel professeur donc animateur. Uh-huh. moom mooy définir. donc l'animateur est le faiseur de tube. absolument mën nga def nag yow way wu neex. Uh-huh. nga ñëw moom moo ko def tube. mais tube bi pour nga def ko dafa am ñaar dafa am ñaar yoo xamante ni ci animation. atte la ku ko def dalay jam mënoo ko def tube. Hmm. déedéet ndax booba boo ko am na noo koy defee hmm. durée de bi danga koy wàññi trois mois lay doon moo xew Sénégal waaye six mois la juróom benn weer hmm. yoo xam ne mën naa doxal boppam nga def ko rotation fort hmm. def deux mois rotation moyenne def deux mois maa ngi ci ñaata yaa ngi ci 4 def rotation faible 2 mois. du 6 mois mois juróom benn way mooy muy dundu juróom benni weer mooy dundu way. d'accord ma soog ko yóbbu xam nga boobu tube la woon. waaw léegi nag dama koy wàcce nag léegi. léegi waaw léegi boobaa nag léegi damay dem ak moom ci classique mooy à la demande hmm. saa yu ko nit ñi laajtee rek waaw waaw yaay créé demande ba nag dafa am noo koy créé hmm. dafa am ñaari façon noo koy def hmm. boo xamante ne boo koy teg doo def biographie discographie ngay def ok waaw boobu yaa ci à la demande mooy jaar-jaar bi way naag diw da koy bakk way naag Youssou Ndour way naag Ismaïla Lo tu crées la demande ok yaa ngi dégg bii lañ bëgg waaw bañ ne bii la da ngay xale dañuy daanu ndax boobaa xam lan nga suscité seen biir xel mhm. mais c'est kii lui ok juróom benn weer yi xam nga laf naa ko nii ma wàccee connotation moyenne mhm. léegi ma ñëw ci discographie ñu ko tardé juróom benn weer gi danañ am ci mais c'est kii lui ki muy technique ki muy wax nii kan la mhm. loolu discographie ko mën a def mais du bio tube soo koy teg doo wax bio kon da ngay daanu mm. kon du doon tube donc am na solo nit ñu xam ko. ni naka la ñuy defaree tube. donc pour animateurs yi ñu xam ne noonu la. donc rotation moyenne bi loolu la bu dawee moom it benn 3 mois après nga ñëw ci rotation faible. Hmm. donc bu dawee 3 mois boobu fekk 6 mois yee dal na. jeex na donc 9 mois daanu na. daanu na hmm. ci benn way maa ngi ci benn way ba tey. benn way moo tax ndaanaan bu ne defoon naa ci réew mi. Hmm. xam nga maa ngi ci 9. waaw donc maa ngi rotation fort rotation moyenne léegi damay ñëw ci rotation faible. boobaa du doon la demande. te du doon bourrage de crâne. Hmm. boobaa ci playlist bi laa koy def. ok du bokk ci sama programmation. déedéet ndax bu ci yàggee way yi bees yu ñu ñëw duñ ci man a xaj. duñ ci mën a xaj ndax sa temps dañ ko compter. day dem léegi ci playlist bi. Hmm. playlist boobu boo ko teg dafa ngay xool catégorie bi mu bokk heure bi nga koy teg. nga teg ko fa waaw kay heure bi crépuscule laa koy may. Hmm. ci sama playlist. Mhm. crépuscule laa koy teg mooy diggante tàkkusaan ak timis. mu fay daw waaw ndax nit ñi dañuy sonn saturé. Mhm. ma may bi bëgg lu reposant góore wa ilaa mën naa ko defaat à partir de 23h. ci guddi gi moom la ñuy wax heure morte. guddi maa bi noonu. waaw kay falaa naan ko sa cas mën na daw diggante 23h ba 6h du matin. su ko defee way bi am un an. way bi am at. waa léegi xanaa du benn woy laa def at jël naa artiste liggéey loo ko samp ko atu yàlla. Eh, dama ne. kon nag loolu. gars yi wasalaam. xam ngeen cours magistral bi <laughs> mënoo leen ko woon am feneen fudul sur la télévision Futur Média avec l' le grand <laughs> l'illustre le le naka laa koy waxee le meilleur de son temps ah temps passé temps présent ba booy bëgg a jëm futur ah waay ex. teral waay dafa way yoo xam ne mënoo ko def tube nag danaa ci ñëw beneen yoon semaine yoo xam ne. ah non non parce que day day ëpp day nekk cours. waaw non boobu waaw non bii moom ah, jeex na. léegi dinañ ñëw ci way yi nga xam ne. kenn mënu ko def tube. Mhm. déedéet. waaw léegi y a ce qu'on appelle des classiques man laa proposé. waaw eh, pour ñu permettre nga reprendre sa souffle. ñu jëlaat nga noppaleeku. waaw ñu teg beneen waaw ñu ñu ñu dem Nigéria fee fekk Yemi Alade. Ah, en attendant keneen ñëw su ko defee ñu mën ko teral. dama lay siif tuuti may ñii. maa ngi jot message yi appel am na solo. waaw 88 628 20 20 bëgg naa ci yéen. 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 20 30 88 628 65 65 88 628 72 86 88 628 76 76 numéro yaa ngi noonu dañuy dell ci euh, yemi bu ñu jugee ci yemi danaa ñëw nag après ñu jël kenn. Hmm. ñu yóbbu ko fee nag ah. la koy xaar takku na de la koy la koy xaar takku na de daal di tibbaat jox dinañ sëq lu bëri na leen ko pay. ay jàll vidéo nga dégg dafa am solo. Mm-hmm. ay boo réalisé te déggoo xamoo musique réalisé bi day métti boobaa da ngay mécanique. Mm-hmm. réalisateur bi dàq réalisé ki ñi ñëpp di wut di ko taamu mooy ki technique ba pare xam musique. Mm. yu neex. ñu neex nga xam ne ñu neex ñu tax a jóg. waaw yu mën a yëngal sax ñiy animé. waaw góore waay donc gis na bii ngewel ñëw na. Mm-hmm. zug naa ci mën nga ko kizomba. kaboo nga ko sax yow. nigérien gën a muus ci àdduna xam ngeen ma may leen seen secret ñoom. waaw. rapidement nigérien yi dañu jël coupé décalé bi. Mhm. ci coupé décalé bi dafa gaaw. waaw coupé gaaw dafa gaaw waaw. ñu ralentir ko. kese. kese <laughs> ay wéyu la jeex na noo ñu doon rendee waa Côte d'Ivoire nii comme ça ñu faatu yàlla amul. Eh, eh. amul leneen léegi rumba bi léegi fi mu toll nii. waaw rumba bi waaw rumba léegi mi ngi commencé yéeg. Mhm. rumba xewoon na. rumba amoon na doole jamono sama ñoom yaay. waaw ñu ay makosa yooyu amoon na. Mhm. xale yi léegi ñu ngi duggaat ci répertoire yooyu. bis na affaire parce que daju rumba lay woy. waaw rumba parce que loolu la dégg congolais la. Mhm, congolais la waa doy caaxaan dañu bëri harmonie c'est quelqu'un qui chante beaucoup euh, si style rumba. te danga xamul lenn. les plus grands bassi batteurs. c'est des Camerounais. c'est des Camerounais. sax jox leen batri baax basse baax moo tax ma ne Habib on lui doit beaucoup. Mm-hmm. ndax boobu ba euh, Cameroun yi at euh, les euh, pas les Zaïrois les les trucs en en basse. Mm-hmm. Ah, waay waay waay waay waay. ñan la. waay fàtt naa leen waay. ñana. waa Afrique kii waay dama fàtt tur bi Afrique du Sud en booba. Mm-hmm. Habib Faye dafa Bob Sène. xamoon na xamoon na xam ngeen bopp seen. déedéet. man xaw ma bopp seen nag tànk tànk tànk pëdë tànk tànk tëdë. baas ba ka ko def. xamul xamul dara. loolu la ñuy wax slap. waaw kay Omar Pène danaa ñëw ak moom Omar Pène père <laughs> père naa la dugal la ba wàccee la parce que super jamono dañu liggéey. Mhm. gis nga foofu. Lapa Diagne li mu def ci base c'était incroyable mais Habib Faye kenn du moom. ndax mm. abi fay est xam ngeen ne base na super super super jamono. ah waaw Habib Faye bi mu njëkk a seen di di tëgg concert. Mm-hmm. di yéeg. Mm-hmm. booba stade Demba Diop loon histoire da war a fay. billaay da ngeen ma a fay. xale waaw mais pour pour l'instant yow da nga koy def. pro bono nii pour xale yi waaw booba stade Demba Diop bii la mm-hmm. super jamono doon tëgg. Lapa Diagne euh, booba dafa amoon porte def da doon dugg ci stade bi ñu téye ko moom ay jafe-jafe daal gars xàmmee wuñ ko bële donc gars yi bloqué ko. Mhm. mu tardé donc heure bi jot te super jamono warul jug jouer ñëpp yéeg mu manqué baas ñu gestu. Mhm. xool gis abi Faye. Mhm. boobu il était haut comme trois pommes bu amee 14 ans ci la yem. ndeysaan. xale la. bi ñu ñëwee ñu woo ko. mu yëg ci kaw seen bu mu lonko ngàlloo baas bi manche bi da ko dépassé da nga ko doon gis nii. macha allah mais bi mu rëkkee non. nga xam ne talent rek moo. ah non non non non non c'était sur kii nga xam ne c'était parce que relevé morceau yi xalaat nga normalement da nga ko war a relever. Mhm. jouer ci concert mhm. da nga ba pare. ci mhm. répétition nga xam ko. mais moom lii ñëpp xamoon na leen. Mm. ndax ci seen pegg la yaroo ndax magama fa nekkoon. léegi yow man mën naa la poser une question. muy ban Habib moom bi muy am 14 ans. te yow nga fekkee li yow ñaata nga amoon. Oh, mais vraiment daal ñun bu du affaire ay euh, kii âge dañuy gëstu dañuy dem toog. bu toog ak mag am ñu ñu fekkee ñun ñu wax ñu ñu diggante lii ak lii ak lii ñu bind. ah dañ la nettali. waaw non mais. ah man damay laajte mais loolu fekk na boobu maa ngi dund nga naan boobu boobu. ah mais fekkee woo ko wala da nga ko fekkee. <laughs> mais damay laajte rek xam nga man sa élève laa damay jàngaale il faut ma xam ndax danga fekkee. fekkee naa fekkee nga. Ah, parce que instant yi maa ngi bind xam nga biographie bi ñu waxoon ne woon pour yow pour ma bindal la il faut ma xam âge bi daal pour ma mën ko dugal ci note yi baal naa la donc mu nekkoon benn anecdote boo xamante ni voilà c'était euh, Habib Faye euh, que son âme repose en paix euh, vraiment li mu def ci musique doy na waa ndax boobu ba pa baas doon génn duñ ko fàtte six cordes génnoon six cordes waaw six africain yu ko ñemeroon eh, ñoom Eric Clapton. waaw Eric Clapton daan naa ko dégg. ñun sama tonton ndax boobu basket la woon. mais bi siis bi génnee. ki ku rëkk mu jaaxal àdduna gaucher la woon mu ngi tudd Sting. cëy les gauchers. waaw. ñoo aay. waaye cëy bi ko Habib Faye téye <laughs> cëy bi Habib Faye téye baas. xale yi tukki leen ngeen wër àdduna ngeen dem xool li seen bàyyi yéen seen maam liggéey ci musique ba boobaa ngeen góorgóorlu bu baax da leen yokk jom macha allah loo leen def ci musique rek mhm. seen waajur yi def nañ lu ko raw ci wàllu musique wàccoon na nag ñun duñ joué nañ ndeysaan macha allah. donc vraiment daal waaw léegi Seck tey moom ñaari cours nga ñu jox. waaw jeex na xam naa ne passion bi la ak daanu bi nga daanu sànq. mais may ñu léegi xoolal dama bëgg nga jëlal ñu rek kenn. ci <laughs> téléspectateurs yi rek su ko defee. Ah, waaw fii ah dañ maa takk jugal rek ah? fii ak 5 minutes rek. dans ah, ok d'accord fii ak 5 rek su ko defee. Euh, léegi waaw. d'accord léegi. Euh, <laughs> xanaa si diggante nga ma nga may ma ma nuyu samay mbokk. ah may ma nuyu el commandante maa ngi lay ah, nuyu tey professeur daa jël cours gi rek ngeen baal ñu <laughs> di nuyu sama xel dafa dem ci tonton Makkan ah, sama rakku yaay jooju Makkan ba ah maa ngi lay nuyu yow ak tata bu baax ah di nuyu waa Tiwaawan sama turandoo bébé Méri Bey Seck ah, ah sama sant euh, ak papam euh, ak yaayam aussi ñoom ñëpp ci biir sans sans oublier aussi euh, ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ñun ñëpp de près ou de loin de près ou de loin yéen ñëpp yéen a ngi ci biir kii di ñëw su ma neexee ma bàkk ko ci biographie def na fi lu def na fi lu bari xale la waaye sañ naa koo bàkk ci biographie mais du ma ko def. kooku kana. su ma neexee ma jaaree ko ci discographie mais du ma ko def. kooku kana. kooku kay Samba Peuzzi. ah waaw. waaw li may xale yi xare leen. ñaa ngi wax xale bu mën way. waaw xale bu bu xam jamono. Mhm. léegi dama leen koy may juste avant ñuy joxe euh, numéro de téléphone yi. Mhm. voilà 88 628 20 20 donc woote leen mën ngeen woote euh, très rapidement yi nekk France aussi euh, mën ngeen euh, woote ci 08 90 03 77 88 du nuyu équipe yeewu leen bi yëpp Pape Cheikh namm nañu ko lool Baye Cheikh di la nuyu foofu nga nekk Bijou Mamadou Ndiaye yow Kiara man tout le monde ah ñu ngi leen di nuyu aussi. Sophie di nuyu Koutia Sophie. Sophie ñu ngi koy nuyu sama waa ji Kouthia tey ñoo leen di bégal ku Futurs Médias la ñuy bégal tey. waaw waaw après ñu ngi ñëw ci waa RFM. Kouthia. waaw Kouthia ak toute son équipe. ah oui ah, léegi c'est Kouthia et c'est Kouthia. waaw Kouthia ah Kouthia et c'est Kouthia. waaw Kouthia ñu góor ñi nag wala amul ah. ah, kon baax na xale jigéen yooyu noonu muy àndal Kouthia li du. kon Kouthia boog waaw. <laughs> Kouthia et c'est Kouthia kon Kouthia et c'est Kouthia kon nuyu nañ leen waaw. <laughs> keroog nag mi ngi wax lu am solo ci ñi sant Bey mhm. est-ce que ñaa la waxoon de. ñaan déedéet wuy ma Kouthia ci boppam moo ko dagg yónnee ma ko ba wax ci waxu tontoo mag wax ci cosaanu béy ba pare ne ayez des béy dans vos vies xanaa boobu dee na. boobu ñu ngi koy ziar. ma ne musique na ma na ko xanaa boobu dee na yow. Mm. ayez des béy dans vos vies. am leen ah, ay béy dans vos vies léegi kon ñi sant yi ñu xaar rek jàpp ci yàlla entre temps ma may leen benn sàmm pause yi ñu dellu si et juste après on se retrouve pour les numéros de téléphone teranga yi on continue toujours Wanda on the beat. def pour mën la gis def la ma maa ngi tuux sax cannabis yow rek laay seet bay defal lu xees ñëwal si man waaye li rafet wuy léelé ñëwal si man waroo mu bàyyi non non wuy léelé sekkuñu looloo. come to me eh. I just wanna show you love wanna show you love come to me eh. I will die for you babe come to me yeah I just wanna show you love I wanna show you love come to me yeah I will fight for you 갑자기 나의 저 단숨 내요 I'm not your love 난 매일 화하며 nga bëgg ko mënul dem na jamba jamba jamba jamba dem na dem na dem na def na lépp jëm na lépp i ma la gis wa may toog naan dama triste Bij me rekt und du bin und du verdienst Bij me, bij me, bij me meteen Und tipa mi buera mama Hoje pa boy sou Jessica Minka pode não, minka pode jumpa Alô, o alma ling me Li ko tagaru ko taas xam nga lim le doy Alô, tegutuma dara Alô, man xamu nu mu demee nii jeex na léegi dem naa dem naa cak cak lay jot sum lay woo xam naa ne ci yow la damay vu wax ak moom Samba Peuzzi une très belle chanson donc mu nekk way woo xamante ne xale bi làkk na ci biir nag dégg naa ko mu làkk créole. Mm-hmm. Euh, elle est capverdienne. donc ñu euh, ci nuyu waa Jessica. Mm-hmm. elle est capverdienne di ci nuyu euh, communauté capverdienne yëpp yëpp yàgg nañu ñun Sénégal et tout. di ci nuyu nag sama benn xarit. Alain Texera tout à fait xaw ni nga ko doon làkkee créole. déedéet yaa ngi Italie nii Rome. Espagne waaw non xaw mënuma créole dama doon <laughs> aaral nii rek pour nga wax. waaw léegi lan nga bëgg moo xam ne ci maanaam nuyu leen nga ne maa ngi leen di nuyu tamit. ñoom it ooy Mokusta Ñoos Fla bon dia ou bon tarde. ah voilà ficadre tout obrigado por ouvir euh, télévision Futurs Médias tudo mhm. na Cabo Verde na praia na São Vicente na mine doy na doy na ah Intefla doy na doy na nag doy na ah, ah, yaa a làkkal ah? waaw mais doy nuyu bi doy na waxal ma beneen làkk léegi laal foo ma laal ma dem naar mauritanien parce que looy wut mauritanien lu seewoon parce que waa Mauritanie dañuy seetaan lu seewoon mais parce que mauritanien dañuy seetaan ah làkkal vraiment non. yaa ne ma laal la si beneen làkk. làkk laa la wax waxuma làkk dama beneen làkk laa la wax. muy tënye duñu làkk duñu làkk naar wala mënoo làkk ara. ñoom xam nga. <laughs> soo mënul da nga naa mënu ma rek nga jël rek dóor ko nit ci trottoir bu tuuru ci tali bi na ceebu jën bu tasaare tali. mais vraiment mbir mi yaa ban yàq émission xew yàq ko Moussa ñu ngi leen di nuyu. kon la xasee waa Tabarak Zeyni ñu ngi leen di nuyu. di <laughs> leen wax Zeyni Hatta. Zeyni ah. Zeyni Hatta. di wax euh, yaa woni woni woni bik ah di wax asalaamaaleykum xam nga nag waa Mauritanie lenn rek laaj ma laaj mer sama xarit ngeen. Uh-huh. Mauritanie dañu lay nuyu. ba yow boo defulee nag da ngay daw. <laughs> Mauritanie ñoom bu ñu waxee ay asalaamaaleykum. waaleykum salaam def sa dafa Sénégal ay asalaamaaleykum. <laughs> Moussa yow yéeg mi nuyu depuis sànq ba tey. salaamaaleykum salaam dañoo bëri jàmm rek. waaye de benn yoon nga koy wax. ah mais dañu bëri jàmm rek ñoom lu ñu wax rek lu seeg. dañ maa neex man dañ maa neex mi ngi fi. naka sa yaay. Ah? ñi ñu xam si sa famille yëpp dinañ ko laajte. loola la waaw ñoom dana la waaye nag déet waaye nag kaay wax day loo gis am na masa masa gin <laughs> tàcc mais ñoom bu ñu ñëwee aywa salaamaaleykum ça va ay fan nga dëkk Sénégal Sénégal ndax da traité Zayn Zayn alhamdulilah salaamaaleykum am na benn xarit foofu noonu euh, maa ngi koy nuyu foofu noonu xam nga Fatta ma ne xam naa Fatta ay salaamaaleykum kooku sama xarit la. man ndeke man ma dëkk maaleykum salaam ba mujj bi ba ngoon jotee ba waaji ba may jaaj tissu ba ma doon jëndee sama yaay ba may ñibbisi dama ko mujj delloo ndax jéppi ko déedéet kay waaye non di ma di ma nuyu digi cinq minutes mu ne salaamaaleykum xoolal nag kaay ma ma toog fi di waxee yow sànq di loo wax ma nuyu maa ngi lay fay naa ba di la bëgg waaw nitu jàmm leen koy xanaa ku ne maaleykum mu ne la maaleykum ma topp seen rythme waaw boo ne leen te Mauritanie rek laa wax de waaye ñu waa Podor dañ gaañu de <laughs> mooy xalpulaar yi ñu ngi gaañu de. waaye <laughs> xalpulaar yi. el commandante xalpulaar la de. Ah, sira gallema wod. Ah, bandira jam mbawdum mbawdum mbawdum mhm. gallema wod kërëb kërëb ba nga foog ne pare nañ ci waxtaan ñu reprendre Maodo ñëwati la ma leen mais <laughs> Maodo xalaat dul toog eh de Maodo mbawdum la mbawdum dal xaw mbawdum <laughs> wala ah? wala dañ lay nuyu nuyu ba ngay waxaat waxtaan ba en fait ñoom bëgguñu mu waxtaan bi wàcc waxtaan bi wàccee yaraax rek dañuy dañ lay nuyu waat waaw dañuy relancer conversation nee noon daal ah cëm ku man ku dul assisté ku ne bilaay walaay wóorul nga dawal oto wóorul wóorul ku jàng dawal oto ku ne am na. sa waajal ku lay assisté foofu ci suuf déglu li ma lay waaj a wax. xam nga lu tax ñoom ñu koy ñuy njoos la rek. Mm-hmm. ku mujjee yaa jël tiyaaba bi. Mm. moo tax ñoom duñ bëgg a ah, ñëw toog wax ba sa yii fuur bu ñu la may waaye daal ñu ne Ah, mujj bi nag boo sonnee da nga naan ko waa jëli yiw bi nga naan ko masa foofu gàll alhamdulilah rabbi alim ah waaye im ni laatu waaye nag kaay xam nga wax naa pulaar yi wax naa naar yi waaw kenn wolof yi wolof yi mën a jàmm sante maa xam ngeen ni suñu jàmm sante bi tey moo tax tubaab bi naan mais yow demal demal nasaraan nga xool lu ñuy wax Sénégal oui mais vous avec les salaamaaleykum ñun ñoo moom loolu. nañ ñu may ñun ñitu jàmm lañ dañu bëgg a nuyoo. sant alhamdulilah tubaarikàlla ana waa kër ga. ñi ngi fa rek ña nga fa. baarikàlla baarikàlla naka sa yaay. ñi ngi fa tubaarikàlla baarikàlla naka sa papa. ñi ngi fa baarikàlla baarikàlla naka xale yi. ñi ngi fa baarikàlla baarikàlla yegg si la ak jàmm. na ngeen def jërëjëf maa yëguloo dara. déedéet sa yaram jàmm mbaa wopp loo wopp wa yow <laughs> ma wopp ma yow nim di laay tubaarikàlla mujj bi da ngay mujj yow boo def leen ndànk nim di laay ak tubaabi Kaolack <laughs> yow tey nim di laay ba yow ngay bëgg a toog wala tubaabi Kaolack gi rek nga yem yow. yéen tubaabi Kaolack waaw ni tubaabi Kaolack. tubaar kàllaa. waaw tubaab bi moom tubaabi Kaolack lay jàpp. mais moi je vis pas Kaolack. <laughs> ma ne ko madame jël jël rek say tubaab Kaolack di laay tubaab Kaolack mu jaaxal te ni ma xócc bëti xonq cooy ndax ci naaj bu tàng lan jàmm sant <laughs> waa jaa nga war Mbamba ma koy laaj fa ma jëm ñu di laay tabaarikàlla mbokki fan Dakar ñu di laay tabaarikàlla naa fa ngeen def ñu laay tabaarikàlla yéen ni doxe ngeen naaj ñu di laay tabaarikàlla ah dal leen nag jàmm ñu di laay tabaarikàlla ah ki mbokki fan ñu di laay tubaab ba jàpp nag ca tubaab bi kaw bi si mi quoi tubaab bi kaw ndeysaan ah. maa ngi gaañu man fu mu nii maa ngi décédé nii man te kat te kaay pare gu ma ne ci jàmm sant bi de bii laay olofa ñun ñoo néeg ñun ñun ñoo ñun naari sax ñoom garaawul. pulaar ko gongo. ko gongo daal. mais ñun wolof dañuy xëcc caas ba mu teng te duñ bu ñëwee ci ñun ne laay tuwaari kàlla naka sant bi. Uh-huh. nga ne ko Fall Fall Fall. Fall fan. dañ koy répété. disque dur bu tëb xam ngeen CD. bu reyee day tëb. Fall Fall Seck Seck ok Seck jërëjëf Seck Diouf na ngeen def. ça va ça va Seck. yem dañ lay laaj Fallou fan lu seen yoon. waaw dañ la laaj Sekki fan mbokki Sekki fan. mbokk Palmeew. Palmeew Palmeew ma nga ca yoonu Ndar. ah ma ca yoonu Ndar. waaw ah dëgg la dëgg la. Fall Fallou fan mbokk man béy nga may laaj. béy ndey saan déggul jàpp mais lu sama yoon. lan la dañuy waxtaan. béy béyu fan. béy majaw sa deex. majaw béy majaw sa deex. waaw waa yàq jëf. waa yàq jëf waa yàq jëf. Uh-huh. ah. taarikàlla nim nga fa waa Tiwaawan Tiwaawan dañ fa waa liyaan rek ñun palmeew lañ jógee ah, palmeew xayra laaw lañ jógee ñëw palmeew sekkeen gi yëpp palmeew man sekk palmeew laa dëgg la dëgg la waa palmeew maa nga ca yoonu ndar nag seen waa kër ñaa fa baa ñu si jàmm taarikàlla taarikàlla sekk sekk baa ni am jàmm taarikàlla 88 628 20 20 him di laay tubaabi kaw la 88 628 him di laay Touba Ville Kaolack bàyyi ni nga am tawféex. mënatuma mënatuma Touba Ville Kaolack 20 30. damay arrêté Touba Ville Kaolack 88 628 65 65. niim de lay yow daal mujj bi ca Touba Ville Kaolack ngay des yow nga décédé ñu naan que ñu métti na wala fi nekk nañu lool jàmm sant ñaar minute doon nañu si Touba <laughs> ah léegi nag ginaaw demee na noonu te kat kaay boo ñëwee kër boo ñëwee kër. pare go du nuyoo. kooku man booba may rey léegi nag comme ginnaaw kuy fëgg la ñuy wax man Victoire yi dafa way mami Victoire yi sama rakk jële bëgguma di fëgg neeg ñu naan ma kooku. kooku. kooku. <laughs> maanaam mais lu tax ñuy wax mi lu tax wolof mais ñun dañ ko mais kii kan la ko mana a. waaw kooku. te du ca danaa la yow la kan. ah waxoo ko ba léegi kan la. wolof yi danaa la kan kanaara de. laa ilaaha illallaah mais ni ñu bàyyi kooka kooku malalam. et lii fii lañ ko fekk ci maam yi lañ ko fekk. dafa gudd. waaw mais baax na jàmm sant la rek Sénégal bi fay sant la rek. bàyyi leen yëfi direct yi <laughs> waaw. mami Victory donc ñu def kuy fëgg moom kiy fëgg yàlla na dugg daal mami Victory yàlla na yàlla si fëgg bi yàlla am ku dugg. allez on regarde kon bu <laughs> <laughs> euh, Madame euh, Baye Souley que je t'embrasse je l'embrasse très fort Baye Souley un ami on a tout fait fu na dem nañ ko tourner donc Baye Souley via le PBS Positive Black Soul ah PBS Radical donc Mami Victory comme on dit ah heureux ménage à toi. di ko euh, nuyu waale moo ma yar. ah Bami ah. Baye Souley. Baye Souley. Mm-hmm. ñoo bokk noonu dëkkandoo ni moo ma yar. Hmm. Euh, mi ngi bëgg leer de. moom ma yëpp ma nekkee xale bu ndaw. photo dana génn. wax nga nii rek preuve dana am c'est mon ami. waaw waaw ah, xam naa ne yéen ñaa yéen a doon ànd. déet. dama la fa daan gis. <laughs> ba may am ay 12 ans 13 ans yooyu. parce que man kër gi laa doon fréquenté. kër gan. kër ñoom Baye Souley ak suñu kër ñoo. ko leen doon maa ngi Baye Souley nu mu tudd. Euh, il est décédé euh, ah, Massa kii la. macha allah oh, déedéet ndeysaan kii waaye ewe eh fàtte naa tur bi il est de casquette la doon sol tout le temps. Ah, dama fàtte tur bi ah, bi. Ah. en tout cas man. magam nu mu tudd en tout li nga wax. am na am na beneen am na beneen mag bu tudd Ela. boo xamante ne ci mankinaa bi la nekk. waaw te keneen ki ki gaañu ki tamit ci mankinaa bi la nekkoon. waaw nu mu tudd. mais dama fàtte turam xanaa fàtte am na ah tamit man laa jël bàyyi. su lee xam ko fréquenté kër gi kii xam naa ko ba xam ñeesam ñeesam sama kër la doon fréquenté. waaw. d'accord HLM 6. d'accord waaw ba jamono ba PBS di PBS dëgg. Ah. ak fecckat yi. waaw ci en face la ñu dëkkoon. xam naa li ma lay wax fekkee ne PBS ñoom mi yëf yi ngi bëgg a neex. mais parce que xale laa woon PBS kay xale laa woon ñu ñëpp fekkee ne PBS. naka nañ ko doon waxee sax seen woy boobu Kapsi. Kapsi eh, xam nga maanaam la. Kapsi yàgg na mais xale laa woon je me rappelle parce que ba léegi man rétro yi man awa di ñoom ñëpp xam nga ah yow tamit bàyyi ma. c'est jërëjëf fii daa leen fekk nii non. merci beaucoup ma la doon wax. vraiment j'ai bu doon tribunal la danaan dañuy fëgg marché bi. non pas du tout na la demal. j'avais 11 ans 12 ans 13 ans. bor yooyu non leer na ba pare say test ni ngi nii France. ana fu mu France mi ngi nii dafa France say test ay plissé la. munoo fexe ba mu plissé wul est-ce que dañuy jël téléspectateur bi aussi. quatre waa jël. merci. <laughs> Ah. vérifié kii dama waat daal 88 628 20 20 allez ñu ngi ciy bëggal euh, Malado donc ñu ngi jot seen numéro aji Faye merci aussi Awa Thiam moom it euh, ñu ngi jot euh, numéro yi on rappelle pour ñu nekk France mën na woote ci 08 90 03. 77 euh, 88 euh, wala 88 628 76 76 wala 88 628 72 86 numéro boo leen gis rek euh, mu affiché ci seen suufu écran bi actuellement c'est 20 20 ah fi mu toll nii daal. dafa naa ne euh, ñu euh, teral la lu duun ci euh, sat bile ñu fàttali encore grand yebbi bi nga xamee ni dana danañ ko am tous les dimanches ngeen ànd ci at Amina Poté mhm. ah donc voilà ñu bégal leen ci iPhone baa ngi nii ñaan naa ko nag sama xarit bu ne mënuñu ma koo may. dig naa la ko. waaye bëggoo ma bëggoo ma may la ko parce que du dig dig da ngay jàpp app ne <laughs> tel danaa la andil iPhone. dig naa la ko daal naa loolu daal. point final dig naa la ko nga bañ. nit ñi dafa am ñoo xam te ne dañu gàtt wërsëg. kan moo gàtt wërsëg yow. ma dig la ko nga naan fi appal ma ñeme yow kay ku ne dinaa la may kay dinaa la may point final. man dama gàtt wërsëg. waaw ku ne woon bu ñu wàccoon nii nii nii rek duma la ko jox waaye nga bëgg maa teg ay conditions. jële ki ne ci ligne bi. Ah. du ma la sax tontu jële ki ne ci ligne bi. Ah, waay allo allo. allo. oui bonsoir. allo. bonsoir. allo. allo oui yaa ngi may dégg. oui ma lay dégg ça va. bien. naka la tur bi ak foo ñuy woowee. Euh, Claire la Claire euh, maa ngi wooyee Fadia. Claire. Ah, Claire ah. Fadia d'accord. Claire comme au clair de la lune la lune. <laughs> waaw on <laughs> naka waa Cité Fadia. ñu ngi ci jàmm baax ñu ngi ci jàmm. Ah, waaw léegi xoolal fi ban région nga bëgg Euh, su ko defee ñu cliquer moo xool lan la sama loxo di tibb. Ah, région de Dakar. région de Dakar. Mhm. sañu ma laa laaj lu tax région de Dakar. nga xëy na parce que Dakar nga ah, waaw wax nga dëgg moom. loolu moom pas besoin d'aller chercher loin n'est-ce pas. léegi ñu cliquer waat Dakar Ndiaye. mun bëgg naa xam kan moo sant loo Dakar Ndiaye timit. war na sant sax beneen sax ah jaayee ñu timit 3 2 1 ma xool li ma sama loxo tib ah sama loxo 75 000 francs la la tibbal Claire. Claire war naa allo Claire. mbaa kontaan ah merci. ayoo xoolal yow il est tout douce. léegi xoolal xoolal sa téléphone ndax jot nga xaalis bi xoolal su may wax ak yow sax damay wax doucement ndax da nga douce. d'accord xaaral ah, xool ko. waaw xoolal sa téléphone. <laughs> est-ce que jot nga message bi clair. allo allo oui. Ilaah Mary Bey. oui. naka mu jot nga ko. waaw waaw egsi na waaw. egsi na. ah waaw ah, kay merci. mais de rien ma chérie de rien nuyul ma waa Sadia waa Cité Fadia yëpp. yooyu yooyu aarali. dégg nga ah. oui oui waaw kay waaw kay Claire. excuse-moi tu disais. gis nga man sa bàyyi bàyyi si caaxaan yi excuse-moi. mais Claire elle est douce di wax nànk mais da nga koy accompagner ci loolu. waaw léegi looy looy jël sa buumu gémmiñ ñu damm leen nii. nañu non buumu dagguma sama buumu gémmiñ dama koy accompagner si ni muy waxee rek. bismillaahi rahmaani <laughs> non Alioune Diagne kii dañ kii dama daan ko ndëppal kii. <laughs> boo ma ndëppalee ndëppal. ku bëy yu ñuul fukki fukki bëy yu ñuul. <laughs> ku bëri affaire. ku bëri rap. Mhm. waaye bi ci gën a mag moom. loolu dëgg la danaa ko déggati bi. Ah. ba ci ko a kaam moom. bëri affaire. waaw ku bëri affaire. Mhm. waaw toogeel nii. waaw ah, léegi nag numéro <laughs> téléphone yaa ngi noonu 88 628 22 22 04 05 ah ñu ngi ci euh, remercier Malado euh, Sidibé. Awa mhm. Thiam Adji Djemé ah donc voilà. Awa euh, Thiam voilà. donc Asta Diop Ngom Aji Jémé ñu ngi koy remercier bu baax bu baax ah di remercier euh, téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi seetaan aussi à travers le que gis ngeen France dañ leen jàkkale benn numéro de téléphone spécial euh, pour yéen mooy 08 90 03 77 88 et on rappelle encore hormis ñuy def direct saa yoo leen woote vous avez des ci biir boo leen woote déjà di ngeen ko dégg mhm. ngeen mën a bokk ci euh, grand yebbi bi ñuy def Euh, tous les dimanches ngeen ànd ci euh, at Amina euh, Poté sinon aujourd'hui c'est un jour spécial pour toi. Oui. donc tout d'abord permets-moi déjà de te. <laughs> xaaral ma dem toog ne damay rus xaaral ma toog ne. wax gi wax gi xam naa damaa commencé rus ndax xam naa fa nga jëm defal nii waaw kay ñëwal maa ngi lay kii. Mhm. ay Mary Bey Mary Bey Mary Bey adada waaw waxal yow it wàccal jamono ndax jamono mën a dox waaw waxal waxal maa lay déglu bon <laughs> j'en profite daal maa ngi ciy nuyu bu baax aujourd'hui nag c'est un jour spécial alors pour euh, pour vous toi et ton ton mari ah que je fatigue souvent moom sama sama doom sama doom bàjjen la maa ko gën a lakkal mm. ah donc monsieur Diouf vraiment heureux ménage merci barke sutura xaalis ah tout ce que beaucoup d'amour beaucoup d'amour ay euh, yow yow yow yow yow sama partenaire Sénégal yëpp seede nañu ko ah, je t'apprécie énormément professionnel carré au la même de ça mais bëgg yaatu. bëgg bëgg yaatu nit kese nga. mais bi ku la gisul mën naa tooñ boppam. waaw loolu dëgg mais nit keese keese keese nga gaaw a jooy mbir boo ne boo gisul ndaw sax mu man kii du ñu ànd fenn <laughs> bu génn gis xale bu xaw a gaañu sax bu taxaw jooy <laughs> mbir mënuñu bu ñu dox 100 mètres. nga bëgg fee jooy <laughs> merci Expo les vœux. bon reménage du heureux ménage joyeux anniversaire de <laughs> euh, merci beaucoup les vœux comme ni nga ko waxee jour spécial pour moi parce que voilà c'était en 22 février et j'ai choisi euh, de m'unir à cet donc euh, ma bëgg ko lool mu bëgg ma lool aussi donc joyeux anniversaire à nous six e yàlla ñu ko yàlla may ñu fetewaat koy at yi at yi at ah, ba ñuy màgget ku nekk yor sa kaan ma lay tooñ nga may tooñ ndax euh, comme ni ñuy tooñante nii noonu lañu tooñante doom baajan lañ donc euh, happy birthday happy wedding anniversary to you uh, merci beaucoup su ma waxee bu bëri sax sama xol bi day commencé kii quoi boo fi <coughs> yow nga téye yow comme comme salaan boo ko xuree sax mu jooy <laughs> non parce que li may wax si si xol bi laa ko jëlee moo tax donc euh, <laughs> voilà donc yàlla la fa euh, ñu cat cat cat cat amin on revient lundi incha allah ñu dellu si euh, waaw waaw ku fi jaar fii jaay waaw collection rek la moo fi jaar avec euh, la montre xalam euh, donc di leen remercier Made Sénégal bien sûr di leen remercier euh, si seen teewaay si seen taxawaay j'espère que vous êtes amusés autant que nous parce que c'est un plaisir vraiment de partager le plateau avec Exidex très mm. généreux machallah donc c'est c'est des fous rires c'est de la joie et c'est vraiment naturel donc di leen remercier di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi doon un spécial appelle euh, coucou à ma mère elle commandantée à Eugène depuis euh, Washington euh, donc euh, voilà ñu ma fàtte ñëpp ngeen baal ma rek fu mu ne nii xel bi to bu ñu waxee monsieur Diouf rek xel ba dem ba <laughs> voilà ah, waaw kon nag ah ciao merci beaucoup. <laughs> ah ce soir sama wàllu ci gâteau bi am naa bàcc mën naa daw guddi donc <laughs> walal ma rek ma jël sama part merci surtout à vous di nuyu waa Tivaouane gépp ah di nuyu waa Palmew ah fi ñu bàyyi ko sekkenu Palmew yëpp aussi di nuyu képp koo xam ne mu ngi seetaan merci à ma fille. Euh, Fat Diagne ah doomu Anta maa ngi koy euh, nuyu bu baax man nag mooy leen rek may rey mooy bàjjen Anta bi muy wax mhm. <laughs> maa ngi koy rey ngi koy nuyu Fat Diagne di ci nuyu tamit euh, Bintou sa grande sœur je t'embrasse très fort Bintou namm naa la sinon pour la chemise Alpha chemise bi calcio shop man calcio la calcio shop la am na benn bu nekk koñu nag bi West Foire boo leen ñëwee bu ci koñu nag bi avant ngeen fa yëg rek foo lay laajte calcio shop mhm. ci chez Badou na leen ko woon original toujours at euh, fi nga ne mooy Wakam Calcio Shop aussi at euh, ki nga xamante ne ah c'est la famille kooku moom mooy euh, Soxna May donc mën nga woote ci 77 747 745 autant pour moi 07 27 77 745 07 27 on vous embrasse très fort merci à toi Mia infiniment grand job maay jërëjëfate merci à tout le monde merci à l'équipe digitale et on se dit à lundi sinon demain à partir de 23 h man ak Ndiathamba dans cette bi ciao.